alors honorable ñu wax ci li nga daaneele sànq muy baisse des denrées de première nécessité euh, bu ñu ko mënee waxee noonu président wax na ne dafa bëgg un plan d'urgence avant le 15 pour que ñu mun ko euh, appliquer bokk na en tout cas ci attente yi sénégalais yi gën a exprimer jamono ji euh, bañ ko faleek léegi mais est-ce que jàpp nga ne loolu mooy la bonne formule wàññi denrées yi parce que subvention la wala wàññi ay tax et on dit que économiquement xëy na Sénégal fi mu ne nii loolu dina dis ci moom waaw bind naa ko démb sax ci benn contribution ba may ne président moytul nga daanu dans le piège des urgences et des priorités mm-hmm. yàlla def na ñun ñëpp dund nañ ko pendant presque douze ans Macky a essayé de faire baisser le prix des denrées des denrées de première nécessité mm-hmm. dindi nañ fi ay tax dindi nañ ko ci farine bi dindi nañ ko ci ceeb bi wàññi nañu ay ay ay ay matières premières yi mm-hmm. pour industrie yi fi nekk mën a produire xool nañu tey mesures yu ñuy jël ak boutique yi ak lu bëri lu ñu xam ne tey. Mm. jël nañ ko mais ba tey denrée yi toll na fa parce que li ci ëpp extérieur lay jógee nañu waxtaan wax dëgg ca la. yow si tu es un pays. parmi les trente pays les plus pauvres du monde tu n'as pas d'influence réelle mm. sur les commodités au niveau international fi ñuy fixer prix yi mm. ba nga ne non Sénégal suñu dëkk il faut ngeen fixer prix bi ngeen wa dimbali ngeen wàññi ko la demande blé bi jóge nañ fii gis Macky Sall dem ba Russie pour waxtaan waaw xam nga loolu la ceeb bi fan lay jóge du Inde ak ay Chine ak yenn ay ay Pakistan yow produiroo ko ci mm. lancé woon nañ fi programme de de d'autosuffisance demul mm, mm, nga nga nga jéem yeneen i nga de nga jéem ko ci yeneen i pàcc ça dire que yow yaa ngi am aussi une économie qui est tellement extravertie tellement informelle l'État n'a pas beaucoup de levier aujourd'hui yi li mu hérité ci ci Macky ay dette la yoo xam ne war nañ ko mën a fay en cours de la dette bi rek pour ñu mën ko fay amuñu marge de manœuvre bu bëri ak li nga xam ne tey mooy FMI banque mondiale pour mën a lebu yenn lebu yi je crois que wax naa ko il faut pas faire fausse route c'est un jeune gouvernement quand je dis jeune mu ngi moom en tant que président il a 44 ans mm. Ousmane Sonko en tant que premier ministre il est jeune aussi on a le même âge ans mais on a on de nous presser Sénégal lu mu soxla tey mooy ànd ak dal wax naa ko démb bul nekk benn Mercedes su McLaren ne da ngay dem démarrer deux cent kilomètres à l'heure pour mujj ci miir bi. du course de vitesse course de du course de vitesse nekkal caterpillar nga hmm. jàmbarloo ak sénégalais nga wax waxtaan waxtaan ak ñoom dëgg. nga leen nous allons travailler sur un quart de siècle. parce que li muy fi fekk bu ñu ci naree toog ci ay urgence duñ ko régler te keneen ku ñëwaatee dinañ ko teg ci ay urgence dañu war a ñun ñëpp taxaw décider ne dañuy liggéey dëkk bi sur le sur la l'éducation. Hmm. dañuy yóbbu ñu ci bëri d'ici malaa sama mandat di jeex à 50 pour cent ñu fexe ba ñëpp dem secteur euh, formation professionnelle bac bi nañu fexe xale yi 16 ans balaa sama mandat di jeex 16 ans ñu am seeni bac nga xam ne deux ans de formation professionnelle ñu dugg dans la immédiatement dans la dans la production nga travailler sur dix ans un programme boo xam ne c'est sur la semi-industrialisation l'industrialisation nga jël le secteur agricole bi nga xam ne tey mooy sa cœur de de combat nga war ci mën a investir xaalis bu bëri. muy nga ne ne da ngay def ay corridor yoo xam ne tey yaa le club des investisseurs ñu ko teg ci table bi li nga xam ne ñu ngi koy woowee le corridor de l' agriculture au niveau des autoroutes gis nga autoroutes yi rek déjà booy génn à droite et à gauche nga. suuf si lu jeex la c' est plus cent vingt huit mille cent vingt huit kilomètres mais imaginez si cent vingt huit kilomètres le nombre de serres yi nga fa mën a def ak le nombre de mini mini mini zone agricole yi nga fa mën a def. ba pare avec des mini centrales d'industrial d'industrialisation de transformation et de conservation mais dinga sécuriser la zone urbaine di nga sécuriser la Dakar di nga sécuriser Kër Massar di nga sécuriser mais tu crées ah, directement des emplois nga def ko noonu nga jël sa temps nga leen man lii laa mën fii la ñu jëm il faut mu metti ci ñu cinq ans yi pour que les cinq cinquante cinq prochaines années ñu war a mën a espérer wàññi denrée bi maîtriser suñu économie mais bu nekkee tey da nga xëy ne d'ici le quinze ñu jox la ay mesures yoo xam ne danga war a mën a xool ni ngay wàccee. Mhm. tu vas décevoir le peuple sénégalais ba pare yow di nga toog tamit weddi sa bopp. loolu nag man pour man le président warul dugg ci couloir man li ma koy ñaan il faut être assez courageux et dire au peuple sénégalais voici les grandes mesures yi ñu war a mën a jël d'abord dans la réduction des trains de vie de l'État. Mhm. dans la restructuration aujourd'hui des agences de l'État. dans maintenant la direction bi nga xam ne tey dañ ko war a jël avec une feuille de route claire bu nga xam ne kilifa diine yi dañ ciy bokk bu ñu fàtte ne kilifa diine yi. ay baykat ay baykat yu mag lañu. ay baykat yu mag a mag a mag a mag a mag muy Touba muy Tiwaawan toolu xalkom yi mais nee naa benn jour nee naa ne Macky Sall ta jamono yu ñu Macky moo fi teekoo tey jomaay moo fi nekk jomaay bu woote woon ne jeunes yi nañu génn bay <laughs> ñu ju bëri duñu dem non ñu bëri duñu dem mais le xalif bu yeewoo tey ne bëgg naa képp kuy murit ci biir Sénégal wala kii ne la képp kuy tijaan da ngay ñëw jàpp ci mbay mi gars dañuy ñëw def du volontariat loolu tamit dafay am luy jur deuxièmement ñuy def ay crédit emploi parce que affaire yi du nekk rek taxer ay entreprise taxer ay kii droit de douane non da ngay fexe ba entreprise ne leen bépp entreprise bu fi recruter cinquante jeunes pendant tel temps de période. Mhm. dinañ la jox benn crédit emploi boo xam ne di nga mën nga dem ci ci au niveau des impôts nga réclamer ko pour nga mën a réinvestir pour dëkk bi mën a dox. affaire bi du lu nekk nga dem naj duwaañ mi ne ko jox ma cinq milliards par jour parce que dama am ay ay urgence du ku indi marchandise nga teg ci ay taxes yoo xam ne tey après ci bopp Fatou Thiam lay wàcc lay wàccaat. l'économie ne marche pas comme ça c'est pas tout c'est pas de la fiscalité et de la non il faut créer les conditions mm. que entreprise yi war a mën a jël en charge l'emploi mais pas l'État mais gis nañu ne xëyu ndaw yi fan la mujj aujourd'hui on a pris beaucoup de de jeunes dans le dans SONAGEP mm. mais looy gis ñu ñuy def da ngay gis benn benn koñ nga gis vingt jeunes bale benn espace kese ñoom vingt mais loolu dafa saturé dafa saturé et du tu les valorises pas doo da leen di wutal ay métiers yu leen di mën a valoriser il y a énormément de terre il y énormément la wax naa la ko sànq Podor mm-hmm. c'est cent quarante mille hectares Anambé lu fa am ci suuf du jeex mm-hmm. donc il faut créer les conditions ne leen man dama am vision boo xam ne mm-hmm. dans vingt cinq ans on aura des jeunes qui sont compétitifs dans une économie qui sera compétitive des jeunes qui seront très bien formés l'État qui sera très bien structuré et la la société mu gën a cohérence suñu biir amul looy yàkkamti Ablaye Wade il a accédé au pouvoir à 74 ans moom bu fi defee benn programme boo xam ne dans vingt ans il aura combien il aura 64 ans hmm. donc 10 ans de moins que Ablaye Wade lu muy lu muy lu muy lu muy yëgoon ay yéegi ci pouvoir ak génération bi ko votel ak ñi ànd ak moom ak ñoom Ousmane Sonko ak ñeneen ñëpp ak ñu ñi bu ñu dundee ñu ne alhamdulilah on a joué notre rôle jarul ñuy yàkkamti parce que urgence fekk na fi Léopold Sédar Senghor hmm. dem priorité fekk na fi Abdou Diouf bàyyi na ko fi dem Ablaye Wade ñaari fekk nañ fi bàyyi nañu dem Macky def na lu mu mën bàyyi ñu fi ay bor bàyyi na fi dem. te urgence yi ba tey ñu ngi fi. <laughs> donc il faut avec dal <laughs> ak tey mm. qu'on prenne le courage nangu nag